maa ngi tudd Guy Marius saña di wax ci turu FRAPP gis naa am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ci pegg bi fële ñëw di def provocation ñëw bëgg a saboter suñu manifestation lenn rek lay tekki lii buñ ko defoon meetingu APR kon rey lii buñ ko defoon meetingu APR kenn du xàmmee kilifa et policiers yi nga xam ne ñoo fi nekk ma leen di interpeller les policiers qui sont là et qui laissent des gens venir faire de la provocation dans notre manifestation c'est tout simplement inacceptable du dëgg du yoon policiers yi lay waxal yéen mii di bàyyi des gens qui viennent provoquer pour saboter notre manifestation ngeen ne pat du dëgg du yoon policiers yi lay waxal Vous êtes des policiers du peuple sénégalais. Vous n'êtes pas des policiers du président Macky Vous n'êtes pas des policiers de l'APR. Vous n'êtes pas des policiers de Benno Bokk Donc assurez la sécurité. Lu fi mën nag du frappe du yanamar yéen la. du frappe du yanamar yéen la. On que ça soit clair. Lu du frappe du yanamar yéen la. du frappe du yanamar jëf lii day wane ne ñun ay nitu jàmm lañu ndaxte bu ñu nekkul woon ay nitu jàmm kon deme na neneen mbokk yi nañu continuer nekk ay nitu jàmm mais nitu jàmm yoo xam ne am na loo xam ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg tey nag li nga xam ne moo ñu fi indi mooy yoon bi nga xam ne dañoo ne dafa jéng yoonu senegal dafa jéng waaye am na solo ñu waxtaan ci lan moo tax yoonu senegal jéng gis ngeen mbokk yi foo munti dem ci àddina bi réew boo mën a dem bu fekkee askan wi dafa jiital ay ndaw bu fekkee askan wi dafa jiital ay surga surga yooyu di sàcc alalu askan wi munoo muus ak a waane ba duñu sàcc justice bi ba duñu sàcc élection yi ba duñu sàcc police duñu sàcc gendarmerie autrement dit ay njiit bu ñu détourner les ressources d'un pays nécessairement ils vont voler les élections une élite quand elle vole les richesses d'un pays elle va voler les élections bu ñu détourner xaalisu réew mi nécessairement dinañ détourner la justice dinañ détourner la police dinañ détourner la gendarmerie c'est quoi détourner la police au lieu que police bi nekk une police au service du peuple day nekk une police contre le peuple c'est quoi détourner la gendarmerie au lieu que la gendarmerie nekk une gendarmerie au service du peuple car payée habillée nourrie logée par le peuple mu nekk une gendarmerie contre le peuple lan mooy détourner la justice mooy nga jël justice au lieu mu nekk justice au service du mu nekk une justice contre le peuple ma ne boo buggee émergence ak développement da ngay am une justice au service du développement et de l'émergence lan mooy justice au service du développement et de l'émergence mooy justice boo xam ne du toog seetaan yow président Macky Sall say ministre di sàcc xaalisu réew mi justice ne pat une justice au service de l'émergence mooy justice boo xam ne du seetaan le directeur général de la poste Abdoulaye Bibi Baldé foog ne la poste c'est son débit moom Bibi dafa jàpp la poste c'est son débit moom Macky dañoo jàpp ne la poste c'est leur débit or ñun li ñu leen di wax mooy président Macky Sall Bibi la poste n'est pas votre débit une justice au service du développement mooy une justice boo xam ne day aar les deniers publics mooy une justice boo xam ne du toog seetaan yow président Macky Sall say ministre say directeurs généraux say maire di sàcc suufu béykat ak suufu sàmmkat une justice au service du développement c'est une justice qui protège les éleveurs qui protège les agriculteurs des bandits fonciers des voyous fonciers des gangsters fonciers des mafiosi fonciers yi nga xam ne ñoo fees dell autour du président Macky justice bi tëddeewul njaaxaanaay justice bi fi am mooy justice deux poids deux mesures donc mbokk yi bu ñu amee un système bu ñu nekkee ci réew moo xam ne c'est un système de prédation maanaam système boo xam ne sàcc alalu askan wi nécessairement sa justice day méngoog système boobu maanaam day nekk justice boo xam ne day gëmm ci président Macky Sall ni muy détourner les richesses de ce pays pour lui sa famille ses ministres ak tubaab yi day nekk justice boo xam ne lan la fi nekkee caat bu waxee président Macky Sall saay-saay nga mu dal ci kawam et pourtant effectivement président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall bu fekkee nag li kilifa wax ne président Macky Sall saay-saay la moo tax mu bëgg a jëfandikoo justice contre notre frère suñu doomu ndey suñu camarade Kilifeu eh bien le président Macky Sall ne fait que confirmer les propos de Kilifeu c'est-à-dire le président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall mbokk yi justice bi wóorul sax pour waa APR ñun ñii fees fii dell ci manifestation bi on se bat pour nous ñu ngi xeex pour suñuy doom di xeex pour suñuy sët mais on se bat même pour les gens de la l'APR ndaxte ëllëg dinañ daanu bii mooy le deuxième et dernier mandat du président Macky Sall te ëllëg bu ñu leen toroxalee du baax ci ñoom donc même bu fekkee ñoo ñuy dóor di ñu soxore di ñu tëj en réalité ñun on se bat pour nous on se bat aussi pour eux on se bat pour tous les citoyens sénégalais tàccu leen seen bopp bu ñu waxee ne justice bi dafa jëng li ci ëpp solo lan moo tax justice bi am melokaan bi président Macky Sall la li ëpp doole ci lan moo tax justice bi am melokaan bu ñaaw bi kumba am ndey kumba amul ndey làkk doom dóor doom tëj xalifa tëj xawma Guy Marius tëj Karim Wade tëj kilifa te doo tëj Bougazeli te doo tëj Siré Dia poste te doo tëj Bibi Baldé poste te doo tëj Mbaye Prodac ñaar te tëj xawma kan kan Sall suñu trois cent mille suñu quatre cent mille suñu quatre cent mille président Macky Sall moo tax justice bi jéng benn te dinañ continuer xeex bi ci gëstu ci waxtaan ci ay forum ci états généraux de la justice wala assise national de la justice ndaxte xeex bi mobilisation la waaye tamit xalaat la Macky Sall moo tax justice mel ni mu mel waaye mbokk yi doyul du loolu rek li tax justice bi jëng tamit mooy ñenn ci juge yi ñenn ci magistrat yi nga xam ne amuñu full ak fayda jëkkër bu tooy wala jabar bu tooy oto bu tooy ceeb bu tooy kër bu tooy ba il refuse d'être indépendant ndax bëgg jël ay enveloppe ndax bëgg jël xaalisu patron buy noot employé ndax ay pàkk ay parcelles yu ñu leen di jox ginnaaw bu ñu fokkatiwee suufu béykat ak suufu sàmmkat oui il y a des juges et des magistrats qui refusent d'être indépendants honte à eux honte à eux ñooñu mënuñu wax rek Macky Sall te duñu tuut baaraam ñooñu nañu waxante dëkk ndaxte juge bi bu jàkkaarloo Guy Marius Sagna donc trois mois de prison wala six mois de prison Macky Sall toogul foofu juge bi moo toog foofu donc c' est important bu ñuy wax président Macky Sall ñu dut baaraam les juges et les magistrats qui refusent d' être indépendants waaye foog ñu dut baaraam yow waaw yow yow yow yow mi nga xam ne saay boo amee problème justice ngay ut ay numéro téléphone juge ngay jéem a xam juge bi nga xam ne moo yore dossier bi nu mu tudd kan mooy sëriñam kan mooy peeram ngir woo ko pour ne ko waaw defal nii dugg na fi donc nous avons également une part de responsabilité nañu waxante dëgg ñenn ci ñun am nañ part de responsabilité buñ la tëjee kaso looy njëkk a def waaw dama bëgg a am numéro téléphone ki jiite xaw ma directeur kaso bi pour nga am lal bu baax non lal bu baax ça doit être pour tout le monde en prison warul am lal bu baax pour doomu borom barke ak lal bu bon pour doomu béykat doomu sàmmkat doomu boucher doomu artisan donc ñun itam oui yow yow mii laay waxal yow ak man ñi nga xam ne ñun ñooy dem si suñu kilifa diine yi ne leen sama sëriñ jàpp ci sinon ma dem tëdd kaso évêque bi wala kilifa diine bi woo monsieur le président ne ko bugguma sa taalibe kercen bi wala sa xaw ma sa taalibe musulman bi bugguma mu dem kaso voilà aussi une manière de faire buy tax la justice jëng bu ñu buggee tamit justice jaar yoon dañuy xeex ngir fexe ba justice jaar yoon nga xam ne kenn du soxla woo le curé ou l'évêque ou le xalif général ou le sëriñ ñun ñëpp ñu yem si ñun itam bëri nañ fii ñoo xam ne ñoom bokk nañ ci ñii tax justice nërmelu nañu bàyyi yooyu dañoo bëgg lu yomb am ñu ñëw xaar pour justice jaar yoon ñuy woo téléphone c'est important de le dire et donc justice loolu mooy tax mu jaar yoon kilifa ñu ngi lay jaajëfal di la wax ne xeex bi day continuer fi may daanelee mooy président Macky Sall bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci biir kaso yi war a am contrôle judiciaire te amuñu ko war a am liberté provisoire te amuñu ko ñu war leen entendre te entendre ñu leen ñu war leen atte te atte wuñu leen ndax lan c'est suñu rëkk ci Marième Faye Sall c'est suñu rëcc rëkk ci président Macky Sall sa suñu rëkk ci APR loolu du dëgg du yoon fii ak ay fan bañuñu ci ba manifestation devant Rebeuss ndaxte nag kumba am ndey ak kumba amul ndey dafa war a jeex wasalaam jërëjëf